ñu tur sant waaw man nag euh, maa ngi tudd monsieur Ibra Ndiaye nekk euh, responsable politique nekk vice-président au conseil départemental de Tamba nekk aussi une autorité de l'aviation civile waaw alors monsieur tey euh, ci li nga xamante ni moom mooy dialogue bi lan lañ mën a jàpp ci loo xamante ni peut-être après euh, travaux yi nga xamante ne def ngeen ko ci biir tëju lan lañ mën a jàpp ci loo xamante ni yéen tënku ngeen ko ndax euh, ci li nga xamante ne jot nañ cee jot muy ay xibaar mooy date yu ñuy jàpp mooy le 2 juin ak processus électoral ñu continuer ko les candidats déjà retenus ñu maintenir leen mais la réouverture de d'autres dossiers ci li nga xamante ni mooy présidentiel bi. waaw loolu nga wax sax dafa am solo. ça résume tout mais bu ñu defee jeunesse bi fan la ñu déparé départ bi d'abord mi ngi ci euh, journée démb bi président Macky euh, ñëw yendu fi depuis onze heures jusqu'à vingt-deux heures maanaam Sénégal yëpp seen sensibilité moo fi nekkoon démb autorité yi nekk ci réew mi yëpp ñoo fi daje woon lu Olof Ndiaye di wax nee na lu ñëpp wax mooy dëgg euh, démb nag président Macky Sall nee na leen def leen ñaari commission y aura juste deux ministères muy euh, justice ak euh, intérieur ñi nga xam dañuy ñëw pour encadrer les travaux parce que décision yi du ñoom lay jógee mais population bi ñoo war a mën a waxtaan tànn date yi gën ñu proposer ko ak euh, modalité yi nga xam ne ni moo gën a baax pour ñu mën a dem ci élection yi mais travaux yi ni mu demee tey boo ko seetloo date bi ñu proposé muy le 2 juin jàpp naa ne fii ñaari weer ba ñetti weer la loolu dafa am solo su loolu weesoo am na ci ay candidats yoo xam ne yi jàppoon nañu ne ne ay binationaux lañu nañu xool nan la ñuy defaree ba ubbiwaat fichier bi ba ubbiwaat en fait euh, les trucs ba ñoom ñu mën ci dugg war a mën a participer ci élection parce que xam nga nag réew dafa am réalité nit mënul am papam nekk sénégalais donte yaayam amul nationalité sénégalaise moom moo am chance am double nationalité ñu bëgg ko expliquer ay élection ne ko parce que yow doo sénégalais te kooku teraanga bu nekk am na ko Sénégal il faut qu'on soit avec les gens yaakaar naa ne mesures yooyu ñu jël mesures yu am solo li ci des nag. mooy yaakaar naa ne bu ñu jëlee décision yëpp jox ko président Macky comme ni mu ko waxee woon moom dina ko jébbal conseil constitutionnel nekkagul loo xam ne dañ ko téye mais. li génn ci waxtaan bi loolu la mën naa am sax bu ñu demee à partir de deux heures ñu calculer xool est-ce que amul yenn contraintes yu nekk ñu jéem a xool nan lañ koy yokkee wala wàññi ba nga xam ne nii moom mooy gën ci Sénégal yëpp bu ñu demee ci élection yi vraiment ñëw ma du am contestation moom ma doon ay contestation yu woo xam ne yu ndaw lay doon population bi nga xam ne nii kenn du ne élection yi jaarul ci yoon parce que loolu mooy rôle président Macky Sall parce que président Macky dafa a am chance chance bi mu am mooy dafa nekk Sénégal def fi 12 ans liggéey fi lu fi kenn mësta liggéey xam nga coow lu bëri lan ma ko indi c'est parce que les Sénégalais ne veulent pas se séparer du président Macky Sall loolu moom mooy coow li moo indi lii. mais président moom nee na doyal na sëkk. ci mbir mi il en a assez. dafa dafa doyal parce que soo gisee démb mu woote sur 19 candidats en fait. mu nekk siège yi sax dañu nekk ñëw te ñoom ci ñoom am na ñoo xam ne ñi amul teraanga bu leen président Macky Sall defalul loolu nan nga ko mën a analyser

Macky Sall woote na ne kaay la ñu waxtaan ñoom waroon nañu jiitu ci ñi fiy ñëw tey bu Boun Abdallah joon premier ministre la woon acte bi mu def démb dafa rafet pourtant li mu wax démba waxul pour tagg président Macky Sall dafa wax li nga xam ne nii de manière objective la xalaat mais kaay waxtaanee réew mi képp kuñ ci woo danga war a mën a ñëw waxtaanee réew mi. ndax ndax yow waxtaan bi nu mu demee démb yow euh, seddal na sa xol dal na sa xel parce que gis nañu tamit dafa mel ni ay yëfu militantisme la di tagg président de la république au moment où on doit prendre des décisions pour l' avenir de ce pays. waaw xam nga boo xoolee comme ni ma koy waxee ce pays là euh, n'appartient pas aux politiques. te soo xoolee démb ñi fa doon jël parol li ci nekk ci ay politiciens matul 10 pour cent li ci gën a bëri ay chefs religieux la ay om homme ay économiste la ñoo xam ne ni ci monde rural la ñu nekk ay ay ay artistes ñoom Kumba Gawlo ñooñu la ñu dégg ne ma ñu wax mais ñooñu li ñu génn seen xol c'est parce que dañ ko gëm dañu xam ne mooy réalité Sénégal mais au-delà de ça mais et la couche de la population mais demal ci monde rural nga laaj président Macky Sall lan la leen defal demal au niveau par tey Sénégal président Macky Sall pour man amul secteur bu mu desal dara loolu nag dafa am lu muy signifier ci réew man nee naa leen. problème bi ñu am tey difficulté bi li ko gën a indi mooy ki ñu war a quitter tey li mu def Sénégal ak yaakaar bi nit ñu am ci moom dafa rëy rëy ba nga xam ne nii dañ ko ñemewul sax bàyyi pour mu dem moom nag liñ koy ñaan wax na ko démb il va accompagner les populations accompagner sénégalais yi nañ ko jox respe nañ ko wóolu mu accompagner organiser ñu élection yu leer kii gagné gagné ñu jox ko réew mi te bu weesoo aussi président Macky Sall a déjà marqué. vraiment une empreinte dans ce pays c'est pas parce que élection yi day am 2024 que président Macky Sall day bàyyi Sénégal dafa war a mën a continuer di dugal loxoom comme un conseiller comme koo xam ne kii day intervenir pour jàppale le président en poste pour que yenn problème yi mën ko régler nee naa la benn affaire dinaa la ko wax président bu fi mënti ñëw muy majorité wala muy opposition nga ñëw fi nga ne damay ignorer président Macky Sall billaahi ku ko ci def boo moytuwul di nga am problème parce que président Macky Sall il est respecté partout dans le monde li mu liggéey Sénégal nee la. malgré malgré campagne boo xamante ne tey moom mi ngi koy dund ba mënu ko muñ di ko wax ci média yi ne campagne de dénigrement wala campagne bi nga xamante ne defoon nañ ko ko au niveau international jaru ko moom mérité. waaw xam nga xam nga parmi ces euh, partisans. jusqu'à présent cette position. non que président image bu mu amoon moom la amaat ba léegi au niveau international. xam nga li indi problème bi parce que parmi ces euh, am na ñoo xam ne dañ ko lâché et alors qu'ils beneen affaire bi am ay sénégalais yoo xam ne donte ay politiciens lañu président Macky Sall defu leen dara. ndax bu ñu jàppee ne ki président nekkul ci yoon amuñu droit aussi. ñu lâché non dama ne président dafa musul wàcc ci yoon xam nga lu tax ma wax la ko. d'accord suñuy delloo fa mbir mi déparé bu ñu doon def jeunesse bi dafay xaw a jël temps mais le président c'est parce que am na ay groupe parlementaire bu ko saisir par rapport à une proposition de loi moom mu abroger le décret qu'il avait signé mais le décret lu ñu mën a reprocher président Macky c'est ça mais il a fait son rôle il a fait son droit ku ko ci tooñ ku ko ci critiquer vraiment da ko tooñ parce que li mu def rek la war a def jërëjëf ñu ngi